Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk déglukat yi daleen ak jàmm l'opposition ba nekk ci assemblée national ñoom de même su fekkente ne nag gagné ñu xeex bi nga xam ne nag moom la ñu tàmbali jëmale ko nag ngir fexe ba seen groupe parlementaire boobu daal kii nga xam ne moom mooy Aïda Mbodj daal di koy jiite ñoom de dafa mel ni nag ne dañoo fas yéene nag gën a taral xeex bi ndaxte juglikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ñoom léegi fu mu nekk nii la ñu bëgg moom mooy daal di dem ci bépp réew goo xam ne nag da ngay dugal sa koppar fii ci biir Sénégal ngir gën a dëgg dëggal wàllu démocratie te it nee nañu dinañu def ay tukki nemmeeku daal di dem nag seeti kilifa diine yeeg kilifa aada yi wax leen nag la nga xam ne de moom moo xew nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale juglekaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb la ñu daal di xamle li ni mel kii di maître El Hadj Diouf moom ci boppam sax mu nekk nii moom daal dinay lëngoo ak ñi nga ne de ñoom ñooy député ya nekk ca l'opposition la mu gëm moom mooy ne kii di Moustapha Niass day jalgati nag bépp yoon boo xam ne dañu koo tëral foofu nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ndaxte moom la mu fay def du dëgg du yoon ki nga xam ne nag moom mooy maître El Hadj Diouf daal di xamle ne nag laata yi ba pare wante dafa mel ni nag ne la kii di Moustapha Niass daal di def Moustapha Niass moomu sax kii la ñu gëm moom mooy daal ne la nekk maanaam daal moom dañu ko yónni ngir di neenal opposition bi nag foofu nga xam ne ci assemblée nationale wante nañu jàpp ak ucculikaay bi di laas ne ki jiite assemblée nationale di Moustapha Niass moom nee na nag léegi dootul nangooti nag ñuy xajamal liggéey yi foofu nga xam ne nag moom mooy ci assemblée nationale ndaxte moom yoon may na ko ne su fekkente ne nag am na kenn mu nekk député ak lu munti doon su fekkente ne nag ñëw na ci biir assemblée nationale di xajamal seen liggéey mën na ko daax ci ni mu gën a gaawee mun na sax jël ñi nga xam ne nag ñoom ñooy force de l'ordre yi takkadeer yi daal maanaam ngir ñu daal di a xajam ñamal seen i liggéey li am ba des daal waa M23 ak tamit Aliou Sow mu fi nekkoon jiw xiñ nag ñoom sax léegi la ñu gis moom mooy daal ni assemblée nationale lañ doon moom gisuñu ko kon kay nañu ko tas tasaar li ni mel tamit moom la Alioune bii di la tribune tamit di ñu ko yeggee ñi nga xam ne nag ñoom ñooy libéraux ñoom fu mu nekk ni nag dafa mel nii ne am na ñoo xam ne ñu ngi leen di tàmbali di jàppale ci wàllu gi ni mel wante li am des daal ci xalima ki nga xam ne nag assemblée nationale kenn warul toog a ko seetaan ndaxte képp koo xam ne nag wàllu démocratie daf laa yitteel ak tamit wàllu yoon war ngaa ñaaw lu naqarlu nag li nga xam ne de moom la bi nekk ci bopp réew mi bëgg a amal ne de moom mooy ci assemblée nationale Abdoulaye Thiam tey jii di xamle ci biir publicaay bii di Sud Quotidien ne nag su fekkente ne Macky dafa bëgg a neenal l'opposition bi de moom mi ngi ci yoon bi ndaxte fu mu nekk ni moom bëgg na fexe ba opposition bi du am benn doole foofu nga xam ne de moom mooy ci nag du dëgg du yoon loolu nag moom la Abdoulaye Thiam di naqarlu ci biir ëccuglekaay bii di si quotidien bii boo Bourgi amatul dara ëccuglekaay bii di libération moom mooy fësal li ni mel ndaxte ñu ngi ñuy xamal ne moom moom mu ginnaaw ba ñu nangoo yenn ci ay appartement yu mu am nee nañu nag nguur gi teg na loxoom benn compte bancaire am nga nekkoon fële nga xam ne de moom mooy ca SGBS ñu wax ci wàllu jàngale bi ëccuglekaay bi di enquête tey ji daf ci def ab gëstu gu yaatu jëmale ko nag ci école yu bëri yi nga xam ne dañu koo nemmeeku fii ci biir Dakar ndakaaru rawatina nag ci banlieue bu Dakar autolikaay ak moo tax ba dañuy jël seen i doom di leen dugal ci biir privé bi wante yoo xam ne la ñuy wax daal ak résultat yu ñuy fësal méngoowul ndaxte ñoom dañoo nemmeeku ne seen résultat ci wàllu BFM ak BAC nekkul ay résultat yu mucc ayib tey ji kon autolikaay bii di enquête daal di ci def ab gëstu gu yaatu ëccubekaay yii di l'observateur ak grand place mi ngi ñuy yëgal ne am na ci lu tolloog juróomi xale yu jigéen yoo xam ne daal amaguñu sax fukki ak juróom yoo xam ne euh, dañu leen a fekk ca plage bu aan ñu si ba set toog nag di fecc bombaas ëccubekaay bi di l'observateur nañu nag ñooñu de police bu moom moo leen teg euh, loxo ëccubekaay bi di grand place duñu xamal ne lañu fa def moom moo gën a pire la xew ca guddi juróomi xale yu jigéen yooyu nag teg nañu leen euh, loxo ba fu mu nekk ni daal a naan dinañu leen déféré ca parquet ñu daal di koy jeexale ak wàllu lamb ak cuulikaay bii di sunu lamb suñu naatangooy nag ñu ngi ñi xamal ne CNG nanguwul ngir ñu daal di fi taxawal combat ci diggante Bombardier ak Rocky Balboa ñoom la ñu gis moom mooy daal ne combat boobu jaarul yoon la ko waral moom mooy daal bépp mbër boo xam ne nag fii ci biir Sénégal nga bàyyeekoo nga am sa fii ci biir réew mi képp ku nekk fii rek ci biir réew mi nga mën a bëreel koo xam ne daal jot naa jaar ci arène bi wante Rocky Balboa ñëpp xam nañu nag ne moom amagul benn combat xam ne nag tëgal nañ ko fii kon nag loolu moo tax ba CNG daal di lank carré ne si tey ànduñu si ëllëg Mansour Aw moom mi nga xam ne nag moo tëgg combat boobu daal di jaaxle nag ci décision boobu nga xam ne moom la CNG euh, daal di jël nag ñoom nee nañu daal euh, CNG ci seen ñoo jox licence ki nga xam ne nag moom mooy Rocky Balboa kon nag ñoom comprendre ñu nag lu tax nanguwuñu mu daal di bëri ki nga xam ne de euh, moom mooy Bombardier nee na nag su fekkente ne nag ñii nekk ci CNG bi ñoom ànduñu ci gi ni mel dinañu dem ba ca Mali wala boog ca Gambie daal di ko ko fay tëgg li ma nekkoon mbox delu kat yi li gën a fës ci biir autorité yi ñu leen di ñaanal njeex ci lu bës ak